Soxna Ada ñoo ngi lay nuyu. nit ñi namoon nañu nag Soxna ci loo nekkoon. <laughs> jamono foo xam ne dangay nekk sa ruq rek. Mhm. sa liggéey. moom bëgguma di faral di génn génn bi di génn wala xatoo nag nekk ci mhm. fi mu ne nii tey nit ñi dañuy yeewoo ak coow Modou Lo ñi naan wahabis la ba am benn ancien sëriñam bu ñuy wax ma sila sila. bu def benn sortie tey suba ne Modou Lo léegi gëmatul gàllaaj combat bu mel digganteem ak Ama Baldé loo ci gis sanaada mais buur loolu xamoon naa ko Modou bi ma gis léegi laaj nekkatul mbiram mais Ama Baldé bi mu ko sekkal dafa gàllaaj ku amee gàllaaj la jamono yi te da ko sut ci wàllu gàllaaj hmm. te Modou moom fi ne mbir yi ko hmm. gëm naa ni de làmb ku ci nekk te gëmoo gàllaaj yàgg-yàgg di nga am surprise hmm. surprise boobu nag dama koy gis ba fi may wax ak yow hmm. bu amul changement ama da koo gàllaaj lool bu amul changement wuti hmm. bu ko amul day daanu bu ko amul day daanu mais loolu day na waar de sonaane daan nag ki ñuy daan nag mbirum yàlla mais bu changé wul carte gi day mujj egg day mujj egg teer suba dañuy waxtaan nga ni ma am na benn événement musique bu war a am le 31. Mhm. Sidi Diop war a tëgg Iba Mar war a tëgg Medina. nga ni ma buur sum bu ñu moytuwul lan nga ma waxoon la. dama ni la buur bu ñu sàggantuwul deret dina fa tuur te mënta ñàkk. Medina le 31. bu ci kilifay yi teelul jug. buñ ci teel taxaw ci wàllu sarax. ak mhm. tojtal. ak fay coow. soow dina egg ba ci deret am ci lii may gis ci intersection Ouest bi mhm. ñu naan oto yi dañuy bëkkante dañuy laale te boo dee seet rawaan bi fi nekk àjjuma lay bañ mhm. boo sàggantuwul fan yee ci ginnaaw deret tuuru na fa te bala mu fi tuur waxoon naa ko samay niti bopp mhm. xamal leen ni leen côté booba daa am lu fa nekk ku ko mën a maytu na ko maytu loolu laa gis ñi seen événement yi le 31 waaw Sonatel li nga yor nii ma fekk la nga di ko am jeeg boo koy wan nii li lu mu di daa mel ni alali jeeg gi la xam nga àdduna moom fu góor nekk góor mooy kaweel jigéen waaye jigéen it baax na ci góor ndax fer yi ngay koy nàndal ci xàmb yi xam naa ne loolu yegg see ci ndax xam naa ne mosaguma laa woon samay xàmb buñ ci nàndalee fer yi ba pare jigéen bu ko taxee ba sëytee góor jeex na fa nga bëgg mu jaar fa rek lay jaar. Soxna li nga wax ni garaaw na de. waaw te fi nga bëgg mu jaar fa rek lay jaar te na nga bëgg mu defal la ko rek la lay defal. Mhm. ba ci wàllu sëy bu jafee bu ngeen àndee seq ci. Mhm. ama ko yàlla jéggal. mën ta mhm. ñàkk. ndax dañ lay diri di la watal rek mais mënatu am fenn foo jëm. kon soxna la ñoo ngi lay ziar. waaw kon ñu def noonu waa axiru daawaan an alhamdulillah wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa